Moustapha Mbacke mu tudde ko Mame Mor Diarra magi Makka kon Serigne Mbacke Madina nag ci turandooy Mame Mor Diarra yi nag la bokk bi matee dal alxuraanul karim waajuram Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke maamam Xaadim Rasul la ko jébbaloon ci njaareem moo ko dalal alxuraanul karim moom magam ji Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ginnaaw bu leen seen maam ja Xaadim Rasul dalalee alxuraanul karim nag ba noppi da leen a jébbalaat nag seen waajuro Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke nag ci daaray alxuraan gi nekkoon tundoo di nag la leen bàyyi jox leen ko ñuy wax Serigne Mokhtar Ale Lo Serigne Mokhtar ale lo nak jangal na len alquranul karim lata ñuy mokal kamil bi nak mu waccat len ci daara yu di jojo jebal len sering mokhtar jeng bu guyar ci loxay serigne mokhtar jeng guyar nag lañ nek nak ba mokal alquranul karim ginnaaw sering mokhtar jeng guyar nag la len cheikh mamadul mustapha mbàkke nak yobbu ganar ñu def ab dir nag ganar lu tolok juroom ben wer nag jappum at ci nar bu ñuy wax mokhtar al asan ginaaw mokhtar al asan nak ci ganar len dil wat nak ci réew mi nak di Senegal. cheikh mamadul mustapha Mbak mi seen wajur nag jobb len ndiarem ci loxay serigne mohammedou dembu ndiarem ginnaw serigne mohammedou dembu ndiarem nag la len cheikh mamadou mustapha mbake nag jox serigne habibu mbake imam ci loxoy serigne habibou mbake imam nag lañ mujjé jangé ñom ñaari doomi cheikh mamadou mustapha mbake yooyu ñu ci wat tundori nak ci seen loxoy waajur wa cheikh mamadou mustapha mbake nag tarbiyé na len fofu nag ci tundóori abdir ginnaw bi nak la len cheikh mamadou mustapha mbake nag ber ñom ñaar mom serigne mbake madna ak magam serigne cheikh mbake gaynde fatma mu jël serigne cheikh mbake gaynde fatma yobbu ko nay de jël serigne mbake madna ne nak yobbu ko ci dëkk bi nak di madina lol sax mom mo waral ñuy wax sëriñu madina so delloo ci way yi ko sëriñ basiru Sile Imam way mom sëriñ mbàkke madina sëriñ basiru Sile Imam nak mi ngi wax nak fi sëriñ mbàkke madina nak jaar ci walum jang mo xam ci sëriñ maxtaar aliloo sëriñ maxtaar jëng guyaar Muhtar al asan bu Gannar sëriñ muhammadu Dembu Ndiari ba ci sëriñ abibu mbàkke Imam foofu fep mu jaar nak ci walum jang so dee déglu way yi nak sëriñ basiru Sile Imam mi ngi wax ne nak sëriñ madina nak moko wax nak foofu fep nak mu jaar ci walum jang ñu tewlu ko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 mujjee nag ci dëkk boobu nag di Madina Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moom itam nawoon na ba faboon na doomam ji ñuy wax maam bu sa ba tey it Cheikh ba tax na amoon na doom jum tudde Serigne Mbacke Madina waajuram Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ibnu Serigne Touba Cheikhul Khadim ku nawoon kii di Serigne Mbacke Madina la am na bés itam président Senghor seet si woon kii di Serigne Bassirou Mbacke ca jataay boobu Serigne Mbacke Madina fekke woon na ko keroog bi Cheikh Mamadou Bachir Mbacke di présenté li mu ko wax mooy kii sëriña suñu dooma waaye moom moo ñu gën kero sax Senghor mi ngi tontu kii di Cheikh dul Bachir Mbacke di ko wax ne ah kon kii mooy sëriñ kon sëriñ sëriñ la waa waajuram Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mook sëriñ Mbacke Madina ñoo jamononte woon ndax bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke di toog xalifa général des Mourides ci biir ayam itam la sëriñ Mbacke Madina toog xalifa Daaru Xuddoos ci biir xilaafaam itam la sëriñ Mbacke Madina génn àdduna ba tax na ku fonkoon sëriñ Mbacke Madina la fu bare bare bare itam jaar na fa ak sëriñ Mbacke Madina am na bés sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke ànd ak rakkam jooju nag di sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke ñu ñëwoon nag ci quartier bii nag di Daaru Xuddoos seet si sëriñ Mbacke Madina la taxoon nag sëriñ Abdou Lahad Mbacke ak sëriñ Abdou Khadir Mbacke nag ñëwoon ci Daaru Xuddoos googu nag seet si woon sëriñ Mbacke Madina sëriñ Abdou Lahad Mbacke nag da doon xañtu nag lépp luñ defoon na ko fenn ginnaaw bu mu yëgee ne sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag suuloon na aw xeer nag ci Daarul Xuddoos ginnaaw buñ fa ñëwee ñoom ñaar mook Cheikh Abdou Khadir Mbacke doon nañ sàkku nag ci sëriñ Mbacke Madina mu sullil leen na xeer woowu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 kasaalika sëriñ mbàkke madina dem na ay yooni yooni yoon ci pénc mii nag di péncum sëriñ soye bu mbàkke ngir di seeti waajuroom wow di sëriñ soye bu mbàkke ba tax na itim tudde na waajuroom wow doom di sëriñ soye bu mbàkke sëriñ abdullahi mbàkke ibnu xaadim rasul itim kasaalika cheikh murtada mbàkke ibnu xaadim rasul ku daa nemmeeku doomam jooju la nag di sëriñ mbàkke madina daana seeti sëriñ mbàkke madina fépp fu sëriñ mbàkke madina nekk naw gum nawoon sëriñ mbàkke madina loola itim taxoon na tudde na sëriñ mbàkke madina doom sëriñ mbàkke madina itim am caatam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 Bombali kii di sëriñ Moodu Maamun Mbàkke fabaatoon na baneen doomam itim jébbalaat ko sëriñ Mbàkke Madina muy soxna Toora Mbàkke bintu sëriñ Moodu Maamun Mbàkke sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ku nawoon itim doomam jooju la sëriñ Mbàkke Madina amoon nañ relation bu yaatoo yaatu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke itim faboon na doomam juñ tudde soxna Soxdaa Mbàkke jébbaloon ko sëriñ Mbàkke Madina soxna Soxdaa Mbàkke am na ak njaboot ak sëriñ Mbàkke Madina waa Mbàkke Kajoor itim kasaalika ndax sëriñ Abdul Quddus Mbàkke di xalifa Mbàkke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 daarul xuddoos gi mu cosaanoo mbooleem ku nekk daarul xuddoos soppeb sëriñ mbàkke màddina nga woon ndax kat ñook sëriñ mbàkke màddina ñoo bokk mu cheikh mamadul moustapha mbàkke magam sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ñoom ñaar ñoo defandoo lépp sëriñ cheikh mbàkke ku nawoon rakkam jii la di sëriñ mbàkke màddina sëriñ mbàkke màddina itam kasaalika ñoom ñaar kenn daawul def dara te yëgaloo sa moroom loole itam waral na kenn ku ne tudd nga sa moroom doom rakki boppam yi ñépp ñu m bokkaloon cheikh mamadul moustapha mbàkke ñu ci baree baree bari tudde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 Léopold Sédar Senghor ku xamoon kii di Cheikh Mbacke Madina la ginnaaw bu ko Cheikh Mamadou Bassirou Mbacke waxoon ne Serigne Mbacke Madina mii suñu doom la te moo ñu gën te président Senghor tegoon ca wax ja ne ko kon Serigne Mbacke mii Serigne la loolu itam taxoon na nag président Senghor nag bàyyi woon xel nag kii di Serigne Mbacke Madina am na bis itam mu invité woon ko ci palais présidentiel bi di palais de la république bi Serigne Mbacke Madina itam demoon na nag ci ngan mi ngi doon wax Serigne Mbacke Madina waxal loo bëgg ma defal la ko moo xam suuf la moo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 la won mom serigne mbacke madina lol nak mom mo waral kérok bi mu jangé ba ñibisi ci réew mom di gànnaar muhtar al asan mi ko doon jangal lettre bim bindon cheikh mamadul moustapha mbacke dafa wax ne cheikh mamadul moustapha mbacke santal yalla bu baakha baax ndax sa ñaari dom yi nga ma jébalon ginaaw bu ma leen jangalé ba nopi ba sétlu leen xam seeni jikko santal yalla ndax jur nga sa dom, muy serigne cheikh mbacke gaynde fatma jur nga sa wajur wa cheikhul khadim muy serigne mbacke madina lol la leen Muhtar asan mi leen doon jangal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 mbacke soxna njaay mi ngi fi te serigne mbacke madina lu ko serigne modou khaban mbacke tudde serigne fallu mbacke assu jéey itam tudde na serigne mbacke madina doom serigne cheikh mariamu njaay tim tudde na serigne mbacke madina dom, serigne cheikh fall baye gori tim tudde na serigne mbacke madina dom, ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu tudde serigne mbacke madina doom xamna ku bëgg lim kuñ tudde serigne mbacke madina da joom ndax jambar gu mu jambaré won ak mandu gu mandu won ak nuru gu nuru won mamam ja khadim rasul lolé tim taxoon na ku xaritoo wut ak moom itam tudde woon nga ko doom ngir bëgg kat sa mbàkke màddina mel ne borom màddina yéeme googu mu yéeme woon moom borom màddina di sëriñ mbàkke màddina ba tax na ay waajuram ay magam ak mboolem ak lu murit gi nag naw ko lool loolu itam tax na nag sëriñ mbàkke màddina nag daana sàkku nag fépp fu mën a amee nag lii di ngërëmul maamam moo xam nag ci murit yi moo xam nag ci njàngum alxuraanul karim ba ci nag lii di xasida yi maamam bindoon sëriñ mbàkke màddina nag daana ko yëkkati nag ba ñëpp nag di ko dégg sëriñ mbàkke màddina jànkatu xasida la woon loolu itam tax na nag maamam faye ko lu ëpp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 baax ñëpp xam na ko sëriñ Cheikh Touré sëñ Baara Mbay Bàcc Jaañ Giloor sëriñ Fallu Sey Cheikh Wade sëñ Seydi Maale ko te bul fàtte daan taalit te bul fàtte jaane mi amaat na ñeneen ñoo xam ne jëmbul ma tudd ko xasaay ti sëñ bi ngi da ko belli génne ko ci biir alxuraan lii tax ñu koy jàng topp ko sëriñ Mbàkke Madina daf daa réem di yëkkati di wax ca kaw ci teewaayu bàyyam waa tindoori de xam na ko xasaayit bu àndeek alxuraan booba wàcc na nde doom Moustapha Mbacke ginnaaw Madina nag Serigne Mbacke Madina nag goraatoon na nag yeneen i dëkk ñu mën caa ràññee Bombali Bombali doomam ji di Serigne Cheikh Mbacke Bombali mooy ka fa féete am na dëkk bu ñuy wax Daaru Rahman doomam ji di Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mooy ka fa am na dëkk bu ñuy wax Touba Kayal doomam ji mu faye Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke mooy ka fa féete am na dëkk itam bu ñuy wax Ñaamar Ñaamar itam doomam ji mu faye maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru itam moo fu féete di Serigne Ibrahima Mbacke Ñaamar Serigne Mbacke Madina itam sanc Minam Bayla nag mi ngi ci wetu Bayla ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak daarul islam danki goog Cheikh Mamadul Fadal Mbacke ibnu Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke daaru Minam Bayla googu doomu ndayam ji tudd Serigne Abdou Khari mbakke mooy ka fa féete kër Serigne tubaa Cheikhul Khadim ngi nekkoon itam ci Jolof ñu koy wax ci yéen Jolof itam kër googu itam Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke ginnaaw buñ nemmi koo kër googu ba noppi Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad moo ko jébbal Serigne Mbacke Madina kon kërug ci yéen Jolof gi itam ci loxoy Serigne Mbacke Madina la nekkee Serigne Mbacke Madina itam amoon na daara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 nekk ci quartier bii di xaar yàlla ginnaaw bu fi cheikh Modou Moustapha Mbacke bàyyi ko itam kër cheikh Modou Moustapha googu ñu tudde kër sëriñ bi te nekk ci ndakaaru ñu koy wooye di foncé itam sëriñ Mbacke Madina mooy ki ko moom sëriñ Mbacke Madina itam sanc na dëkk bu ñuy wax jam weli jam weli nag mi ngi ci diggante Madina ak sëriñ ak yeneen i daara nag yu mu amoon moom sëriñ Mbacke Madina suuf su yaatu itam am na ko nag ci dëkk bu sell bi di Touba muy fi ñu tudde trente sëriñ cheikh Mbacke Bombaali bi foofu itam sax amoon na fa kër ak kër gi wuuf nag jumaa ji di kër sëriñ Mbacke Madina dëkk bu sell dëkk bi itam di Taïf ci loxoy Serigne Mbacke Madina la nekkoon ginnaaw bu fi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke li tax nag mu dem nag ci loxoy Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag dëkk boobu nag dafa nekkoon bëgg-bëggam ginnaaw bu Serigne Mbacke Madina nag yëgee loolu la fob nag dëkk boobu nag di Taïf jébbal ko magam Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waaye nag ci cosaan dëkk boobu nag di Taïf ginnaaw bu fi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bàyyi ko ci loxoy Serigne Mbacke Madina nag la nekkoon mu wéy nag topp ci ginnaaw magam sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba ni magam génnee àdduna ci atum 1978 ci fukki fan yaak benn ca weeru mars wa sëriñ mbàkke màddina nag ñëw toog ñaareelu xalifa mu mamadul moustapha mbàkke wuuf ay rakkam taxawu waajuram moom wa ci ndono lii nag mu ko bàyyeel sëriñ mbàkke madina nag jëf na lu bare bare bare nag ci xilaafaam ndax jàkke jii ñu tudde jàkkey daarul xuddoosa moo ko tabax ba ni mu eggee jumaa ju mag ji nekk njaareem itam muy palaasu jullikaayu iid boobu ginnaaw sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma bi mu fi bàyyi ko sëriñ mbàkke madina moo nekkoon imaamu julli tabaski ak korite yi ba nim fi bàyyi ko ci atum 1985 ginnaaw bu mu fi bàyyi ko nag la ko sëriñ Moustapha Mbacke Basiiru wuutu foofu màggalug daaru xudóos gi itam laataa muy toog xalifa cheikh Mamadul Moustapha Mbacke màggal na ko benn yoon ci xilaaf ak sëriñ cheikh Mbacke Gaynde Fatma mooy bi sëriñ cheikh Mbacke Gaynde Fatma ajee Makka te yeexoo na ñibbisi bi mu toogee xalifa daaru xudóos itam màggal na ko ci 1978 ba 1985 moo tax soo demee ci way yi ko El Hadj Seck way mi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 Moustapha am Serigne Madina jot ca raw la muy mébét ci diine na gudd fan am barke am wér-gi-yaram te sutu fan ci Moustapha ma masa am te Mourtada yàgg fi lool am tawféex ba ñëpp yor addiye ñëw naa ko foox ma del wax la yeneen i jëwriñ yu mu defar may leen ndam bu leen bañ sëñ baaraloo ku baax la dëkkewoon kaayal sëñ Madina tax kooka dootu ñàkk njël mën a defar ba xëy defar ko sant coon sëñ Mbàkke Madina defar maam caat coon sëñ Moodu Xëri Géy ak sëñ Abdu Xuja Géy sëñ Mbàkke Madina defar ñi ëskay Basiiru Gay ma dëkk mbas xam ngeen ko sëñ Madina tax lum foox ñu def ko sëñ baara mbub ku baax la dëkke kastoor bi ëpp kasoloor daanañ indi addiye bis bu nekk noog te yàlla ko faynu joom te kat wolof dafa wax sax ni ku lim joom te ñii ma lim ci lim defar lu tuuti la ndax xawma xaajub ñim defar barkeelu la ñii ma tuddul ñëpp nabuur defal leen saxaadatu daaray ni afal leen ci barke sëñ fàllu mu sëñ abdu xari ak barke way juróom wa sëñ abdu xari man lii ma wax yàlla na neex dongoom yi te doon nga lu rëy te neex doomam na wax jaam xorom ci sët yi yëpp te yàlla na neex doomi jigéen yi yëpp ñaan naa ci barkeb soxna bintu doomam maag sama waa kër ñëpp sax ci ngërëmam ci barkeb soxna maam amek soxna daba xéewal yu sax bu bonu gàddootib daba ñaan naa ci barkeb sooda mbàkkeeg naata suba gu ñëw sun xol yi gën faa naata barkeb soxna su jàmbaari xel koom ñu am dimbali yàgg fi ànd ak koom-koom ñaan naa ci barkeb soxna xadi mbàkke na dong yëpp awalal buñ banke ñaan naa ci barkeb doom ji soxna tuuti boo liggéeyun fa dajee ki joote ñaan naa ci barkeb soxna moom awa moomam xéewal yu sax dàkk ñoom wér gi yaram teemaa taxaw li fi te ñaanaan jéggal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 Dia murid mouride bi fi nekkoon jamono jojo di serigne touba cheikh abdul ahad mbake serigne touba cheikh abdul ahad mbake nak mo sàkku ci rakam ja di serigne touba cheikh abdou khadir mbake ngir mu taxawu sen doom jojo di serigne mbake madina ginaabu cheikh abdou xaadir mbake julle serigne mbake madina ba nopi nak lañ ko jébbal boromam ci ginaaw waajuram wa cheikh mamadou mustafa mbake ak magab ji serigne cheikh mbake gaynde fatma ci jumaay touba ji ci soror bi fete keur cheikh mamadou fadal mbake fa la doomu cheikh mamadou mustafa mbake bi teud nak di serigne mbake madina bisub keroog ginaaw bu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 jaara amiin Mame Mor jaara